gars yi baax na Pape bi ñu nuyoo ndax li lay mooy réussir nga ko yàgg na nga koy muñ on ko wax naa ko barki bis bi ñëw na tey nit ñi ñëw nañ en masse lay ci am na suñu borom gi nga dogal na ko ci tey nan nga jàngati situation jàngatuma ko nenn lu dul sant yàlla alhamdulilahi alamin laay wax li ma war def naa ko du ma tiit duma ragal duma ma tàppet te gor laa ci dëkk bi laa dëkk tekki fi te di fi def teraanga fu ma neex laay daagu bokk ci famille bu baax di li teg képp ku fi def sa yëfu baax doole ak sa yëf luñ lay xeebe kooku yow la engagé du dëgg ay millions laa jël fay ko du dëgg organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak ameel ko amateurs yi ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa keneen nag koo xam ni yàlla def na ñu yare la neneen ngam mel neneen di doxala neneen kooku yow la engagé le reste j'ai moo de parce que le dernier moo ne me revient pas. lamb soxla la ko ak jafe-jafe yi. Euh, Cheikh Mouhamed Fadal da doon sama sëriñ. maamin hmm. am na question yoo xam ne du ma ko bëgg ñu di ma ko laaj. Hmm. d'accord parce que man damay tàng. non dama lay wax non dama ni du question du ma tàng man nit la lii dafa neexul dafa naqari. mais boo ma nee ay lii. ndax lamb soxlaw na ko. yow yaa ma gën a xam ni image yu mel nii. mbindeef soxlaw ko di ko gis. parce que dañoo yor njaboot. gis nga doomu aadama. bu ñu demee ba jël ci ay nit. ci set million sénégalais nommé leen. defe naa ni leneen lañu doon xaar mais du li ñu image yi ñu gis tey. ku xam ne xool ñàkk teggin la mais nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñàkk ngor. d'accord dama ni. tu me dis que ni Waalo xol laay waxe mais man nit laa. damay am lu ma naqari. damay sant yàlla. ba ma nit ñëpp xamee. mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax. dee moom a gënal dund. mais comme sama yoon newu ci man du ma juge. du ma àttekat du ma police du ma gendarmerie. du ma CNG. li ma war mooy. wàccoo naag ñoom wàccoo naag amateurs yi. wàccoo naa ak journalistes yi wàccoo naa ak téléspectateurs yi lamb ji di woon direct. amee dama ko def direct à la dernière minute pour bëgg lu neex Sénégal mm. mais gàcce laa mujjee. comme combat bi àggul en tant que promoteur après lu mu mën a loolu sama yoon newu ci. yaa tëgg la dama koo dégg dama ko dégg. waaw dama ni. maa ngi toog di déglu ñi nga xam ni ñoo yor làmb ñoo koy gérer. bu ñu xasee ba jël décision. danaa leen woowaat toog waxtaan ak yéen. merci li la war lépp def ko. non du question gàcce man aw ma gàcce déggoo ma de. waxin laa la wax. dama ni Sénégal tey gàcce moo fi am. def nañ li ñu doon def. mais xaaruñu woon ci làmb ju ñu pousse ñaari at. troisième année bi ñu ñëw di ñu tegal plateau bii. mais tey dañ ne organisation bi dañ ko joxoon dañ ñu ne que ni Papa Sow fi nga xam ne fa loolu du suñu devoir ñun. man def naa ak yéen loo xam ni du sax sama wàll def naa ak ñeneen loo xam ne du sax sama wàll pour parfaire mais dafa am loo xam ne liggéeyu CNG la man du sama liggéey. sama yoon newul ci loolu bu ma dugal man wax dëgg loolu kañ bu mu la naqari mani yow Abdou Fall moom kenn du ko jam naa ni Abdou Fall jox rendez-vous